scandale sur le plan économique yoo xamante ne dañ ciy tudd ay milliards mën nañu jël poste crédit mutuel bu Sénégal ñu ngi koy tudd euh, ñu xëy tey wax trésor lu ëpp ci cinq millions cinq cent mille six cent millions cinq milliards six cent millions de francs CFA euh, ci njuuj njaaj goo xam ne am na fi lan la mën a jural suñu koom su fekkee ñu ngi tudd yooyu scandale des centaines de millions de francs CFA loolu en fait euh, day traduire rek le fait que sur le plan de la corruption ñun on est toujours dans la zone rouge Sénégal ci dëkk yi corruption gën a élevé ci la bokk zone rouge boobu ba léegi génnuñu ci et donc bu ñu xëyee ñu ne am na ay scandale financier yu touché ay institutions publiques à hauteur de milliards loolu day tax euh, suñu partenaires yi duñu am confiance pour ñëw si suñu dëkk loolu aussi day tax day am fossé buy gën a euh, fossé buy gën a yaatu entre ñi nga xamante ne ñoo yore réew mi ak population yi ndax confiance bi day wàññeeku ndax réew mi bu ñu buñ buñ ko dénkee nit c'est pour que mu préserver patrimoine bi ñoŋal ko ba askan bi yëpp mën ci jariñu mais bu fekkee ne nekk dañ ko yore ci conditions yi nga xamante ne ñi nekk ci nguur gi dañuy jël alalu réew mi di ko pasar pasare ba askan bi seen i problème xam nga li ngay wax rejoindre na na par exemple retraités yi nga xamante ne tey ñu nekk poste finance ak yooyu. am na lu jafe-jafe waaw jo jafe-jafe pour fayeeku. Mm-hmm. loolu tey Euh, ah, nekk na problème ba nga xamante ne dañ ko war a résoudre de manière urgente mënatul xaar ndax ñu liggéey pendant trente ans trente cinq ans dugal seen seen seen cotisation yi ceeb ay institution mmh. ñu dem ba ñu nit moo ko détourné wala un groupe de personnes ñoo ko détourné mmh. loolu je crois que justice dafa war a saisiru ñiy def acte yooyu ñu sanctionner leen la manière la plus sévère ndax mmh. affaire bi mënatul continuer Sénégal il faut ñu xam ñun suñu destination est-ce que dañuy dem pour génn ci ndóol ak jafe yi nekk wala est-ce que dañuy continuer di comme nii di marquer le pas sur place comme yeneen dëkk yi nga xamante ne. Hmm. Euh, ñoo ñoo ñooy ñooy ñooy dëkk yi gën a nekk en retard dans le monde. il faut hmm. qu'on fasse des choix et honorable sànq wax na wax bu am solo gis nga dëkk pour mu développer wu il faut que ñi nga xamante ne ñoo ko jiite déjà ñoom ñoo war a njëkk a euh, respecter. les lois et des règlements. Mhm. gis nga dëkk tant que nit ñi respecté wu ñu règle. Mhm. respecté wu ñu règlement wu dëkk bi respecté wu ñu constitution dëkk bi mhm. dëkk boobu vitrine extérieure am du baax. et paradoxalement paradoxalement ñoom ñoo ñuy woo ci xeexum corruption comme ni nga ko waxee. waaw paradoxalement ñoom également. ñoom la ñuy dégg ci xeetuk euh, détournement. Ah, loolu loolu wala ci ay entreprises yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite. waaw xam nga loolu loolu xam nga sur le principe wax nii rek. yomb na mais problème bi mooy les gens vous attendent sur les actes. jëf bi. xam nga bu ñu ne Sénégal am na scandale euh, lii euh, nu mu tuddati euh, passeport passeport diplomatique. Mm-hmm. mais honorable xam na ne que chancellerie yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal ñu suñuy nawle ñu bari fi lool. saytu affaire bi ñu xam ne ne ñun su suñuy passeport am na yi nga xamante ne ay nit ñoo koy falsifié moyen de xaalis mais ñi dañuy ree mais euh, ay corps de contrôle yoo xamante ne ñoo waroon xeex loolu nga di pay guerre mais ay corps de contrôle yoo xam ne ñoo waroon a saytu li nekk ci entreprise yi mën nañ ci tudd IGE bi ñuy wax sax ci xibaar ne war na dem poste peut-être pour pour càmbar. Mm. Euh, OFNAC mi ngi fii la cour des comptes euh, tey si quoi problème bu ñu bu fekkee mën nañ la ko laaj ba tax na yooyu yëpp di am amandoo. ñu ci tudd ay milliards ci kopparu Sénégal. waaw corps de contrôle yooyu existé nañu mais problème bi ñu am tey mooy problème mu réactivité. Mm-hmm. il faut que autorité bi nga xamante ne moo yore seen fonctionnement moo war fexe ñu gën a réactif par rapport ak problème yi nga xamante ne économie Sénégal dina ko rencontre par rapport ak fonctionnement wu institution publique yi. Mm-hmm. xam nga euh, yu mel noonu dañ leen di activer. IGE dañ koy activer dañ koy wax demal nga càmbar tel problème. dañ bu ñu koy activer dañ koy jox délai dañ koy wax nangam ak nangam ngay def donc ki nga xamante ne mooy autorité bi moom moo war a manager corps de contrôle yooyu pour que fépp fu jafe-jafe am ou aussi ñuy anticiper noppi inopiné autorité da koy def autorité day contrôler fa nga xamante ne benn problème amu fa. Mhm. mu ne IGE demal ma tele bërëb. nga contrôle ma nga xoolal ma foofu saytul ma lu fa am te pourtant foofu problème amu fa. mais problème bi mooy su ko defee ba épinglé du am suite. waaw loolu est-ce loolu tamit dina leen may. waaw loolu loolu loolu mooy. Mhm. débat débat bi am ci par exemple. OFNAC bien sûr mhm. OFNAC ça a été une avancée dans le principe. ñu ne citoyen bu nekk am nga droit nga dem def dénonciation anonyme mhm. que ne diw wala diw wala dans tel bërëb dañ fay gere et cetera. boo ko defee dina am enquête. enquête bi bu ko defee ba pare nag. foofu la problème bi nekk mooy dañuy déposer un rapport mais rapport boobu en principe engagé wul justice procureur mën na ko jot mais engagé wu ko pour mu mu ne day day topp ki nga xamante ne am na kon volonté waaw c'est-à-dire que ne xam nga xam nga man li ma gëm mooy hmm. le fait que ñu teg nag pour man avancer la maintenant avancer boobu rek doyul dafa am beneen avancer bu ci topp avancé beneen bi mooy ñu def de sorte que mu am mécanisme externe ba nga xamante ne bu nag Euh, dafay enquête am ba pare automatiquement day day lier justice pour mu am procès pour que ñi nga xamante ne dañ leen euh, euh, dañ dañu impliqué wu ci affaire yu mel noonu ñu mën leen àtte devant les cours et les tribunaux loolu il faut que ñu ñu dem vers ça sinon yàq de moyen la parce que gis nañ fi ay rapports yu bari yi nga xamante ne OFNAC def na ko mu épingle ay nit ay autorité yu nit ñi xam ñu ngi leen di gis ñuy vaquer seen occupation te mujjul fenn mhm. alors malversation ci këru liggéeykaay yoo xamante ne c'est des entreprises publiques dégguñu ci assemblée est-ce que yéen aussi amu leen ci responsabilité parce que bëri na tey euh, askan wi li ñuy xaar ci assemblée ñu sëgg ci mbirum sax commission d'enquête parlementaire assemblée ko xaar si lu mel nii doo ko gis ndax la liggéeyam moo baaxul du liggéey liggéeyal pour askan wi te enquête parlementaire dafa am nombre yoo xamante ne ay député yoo xamante ñoo ko war a def aussi am ñoo xam war a gunge pour bu loolu amee maam ñaata enquête parlementaire la ñu déposé opposition bi nanguwuñu ko benn enquête parlementaire mooy bi am mu jëmoon ci affaire Mamour Diallo Ousmane ko jiite woon Cheikh Seck mm. fan la mujj ak li wax suuf ak li mu wax si kaw moo lay wan ne kenn am na yoo xamante ni pour man euh, euh, il faut que ñu xoolaat li nga xamante ni moom la war a gis nga fi mu toll nii mm. enquête parlementaire yenn enquête yëpp gis nga am réew bu fekkente ñi ko yoree bëgguñu jubal bëgguñu maanaam jaar ci yoon du jaar ci yoon man scandale yi ngay gis yëpp successivement na ko réglé te coow du am ndax am na sañ sa procureur de la république fépp foo xam ne dégg na fu lu mel noonu moo di susu pour si maanaam ci turu askan wi naas nga soxla nan ko ndax boo xoolee président de la république Macky Sall mooy chef suprême magistrat moom xam na ni scandale yi am na ndax dégg nga ko si fi ma lay mën a wax rek mooy ñàkk respecté li nga xam ne mooy institution yi ak. suñu suñu suñu justice bi mooy dama dem benn séminaire euh, euh, fii benn hôtel. Mm-hmm. ki nga xamante ni mooy euh, ki yore nag mu ni loi bi nga xamante ni mooy loi bi ñuy def déclaration patrimoine respecté wuñ ko naa nga foon ak le premier vice président assemblée nationale mm-hmm. man ma dañ ma invité en tant que membre commission loi ñoo wote loi bi mm-hmm. mais ki ko jiite nee na respecté wuñ ko kan moo ko war respecté Macky Sall mi signé décret taxawal nag daal ni OFNAC bii kat pour ñun ñii nga xamante ne moo ñoo fa lu 2012 ñun la ñuy tàmbar kër yi ma dama ko boon pour ñee farlu woon maanaam 2000 ba ba ba ba 2012 mais est-ce que maanaam boobu ba léegi gis nga nag def rapport am moo xam kudd moo xam fu mën doon dem déposé ko ci procureur moo am enquête. seen mandat jeex na. daanaka. kenn du ko renouvelé am na mandat yu bari yu jeex mandat <laughs> conséquence jeexoon na te gisoo ko fi noonu ne dañoo dañoo délivré te du yoon. voilà ci législature ba passé benn proposition de loi moo ci amoon. bii ndax am na proposition de loi. gisagu ma ko war war naa am de xam naa ndax mercredi muy suba war nañu déposé benn proposition de loi boo xamante ni mooy tax ñu criminalisation homosexuelle incha allah. d' accord lan la ñu war a soppi ci assemblée bi parce que bëri na fii. ay candidats à la présidentielle yu fi jaar ni bu ñu ñëwee dinañu tabax assemblée bu méngoog aspiration population yi. mais ba léegi si gisaguñu loolu man 2024 président Pape Diop mi ma àndal. bu gañe woon réew mi assemblée nationale bu ñu fekk dama koy tas. te danañ fexe ba nga xam ne ñuy fale député yi dana wuute ak ñi nga xam ñoom na koy fale nii benn dañuy fexe ba département ba nga dëkk député yi jóge foofu carrément ba ñu jóge si liste nationale. Mm-hmm. ba pare ñuy xool maanaam ñuy xool. di càmbar nit ki moralement avant muy ñëw ndax am na si ñoo xam ne dañuy ni des seen xel des naa neex ndax yenn kàddu yu may dégg ensemble ak yenn jëfin yi ku sa xel neex doo ko def nga xam ñoo jiite commission yëpp ci nguur gi la bokk yenn yenn jëfini maanaam waaw ah yenn jëfini mu toogee ba léegi mas ngaa gis benn yoon Assemblée nationale jóg ni day dem contrôler action gouvernementale te moom pourtant loolu la moom loi moo ñu ko jox commission yi nekk Assemblée nationale yépp ñun benn commission lañ si yor te bureau bu ñu dem du ñu ubbil muy commission ba mu la boo dem seeti ko sax bu toogee Assemblée boo ko waxee loo ne soxla askan wi nga ñettagal ko mu ngeen ñëwoon nga sama bureau wala war nga ma téléphone fekk ne cadre liggéey opposition du mu dem si bureau ministre parce boo fa demee yeneen ñu bu la fekkee dañuy def da nga ñëw si ministère pour naa namuwul sax boo taxawee ñoom ñu yaakaar ni xëy na liggéeyuloo kon moo lay wan ne il faut yi ak doxali mi gis nga bu ko sa si yàqoo dañuy taxawal ñëpp ñu càmbar société boobu noonu jéem ko defaraat avant mooy nekk sa trop ci ci wàllu transparence euh, président Macky Sall tey ubbi na ay waxtaan soxal ko lu jëm ci nan la ñuy séddalee rek euh, li ñu nar a am ci ressources naturelles yi alors loolu it am na commission ca assemblée bu ñu ko jagleel est-ce que commission boobu noonu yéen gis ngeen